mbokk yi koor gi daanaka dugg na yegg si na ba pare ndax ñu ngi ci weeru Chaabaan te après Chaabaan koor gi mooy ñëw quelques jours moo ñu dese ah weeru koor a ngi nii weer boo xamante ni weer bu màgg la ndax ci lañ wàccee alquran al karim allahu akbar ci la laylatul qadr nekk ku fekkee laylatul qadr ci weeru koor guddig laylatul qadr am nga tiyaaba raw ki nga xamante ni jaamu na yàlla pendant quatre-vingt-trois ans ak lu teg ci weer bi weeru koor gii di ñëw buntu aljanna yëpp yàlla ko ciy tijji yàlla nañu yàlla yërëm dugal ñu aljanna tëj ci buntu safara seytaane yi ñu wàññi seen doole maanaam ñu takk leen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ku ci jaamu yàlla borom bi subhaanahu wa taala yërëm na ci dugal la aljanna yàlla na yàlla yërëm ñu dugal ñu aljanna di profito weer bi nga xamante ne mooy weeru koor nga xam ni euh, yàlla farataaloo na ko ci ñeneen ñu nit yàlla farataal ko ci ñun comme nu ko waxee بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون yal na yàlla may ñu fekke weeru koor ñi feebar ñëpp ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may leen wér may leen tan allahuma shujamil marda ya rab képp ku nekk ci situation bu jafe yàlla ko yàlla taxaw sàmm ko génnee ko ci jafe-jafe boobu yóbbu ko ci lépp loo xamante ni yiw la ak lépp loo xamante ni lu baax la min al usri ila al yusr ñi gaañu ñëpp yàlla yàlla yërëm leen dugal leen aljanna firdaws ci yërmandeem allahuma arham naa allahuma arham jami mawtal muslimin ya rab ñu nit yàlla na yàlla may ñu dund bu teey may ñu guddug fan waaye may ñu mujj bu rafet ñun ñëpp yàlla yërëm ñu dugal ñu aljanna mbokk weeru koor a ngi nii nañ ko préparé incha allah dinañ ñëw ci waxtaan yi ndànk-ndànk et puis pendant aussi weeru koor gi nañ ci def ay waxtaan yal na yàlla nangul ñun ñëpp booleen ci ay xaritam yal na yàlla suturaal ñu ci lu feeñ lu nëbbu yal na yàlla jéggal ñu ak suñuy njuumte ak suñuy rëcc-rëcc moom mooy borom yërmande yàlla nañu yàlla yërëm moom moo am yàlla nañu yàlla may moom mooy borom barke yàlla na yàlla barkeel suñu dund li ci feeñ li ci nëbbu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rendez-vous bientôt incha allah taala ci weeru la ak weeru ko lan moom moo ci euh, li alxuraan wala boog li diine jàngale ak lan mooy yàq ko ak lan lañu war a moytu ci weeru koor ainsi de suite dinañ ci ñëw ndànk-ndànk di leen ñaanal jàmm yal yàlla sàmm leen barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa sallim tasliman kathira